جعل في سل لنا به ربه الجميل من ذكره واللطام نعم النبي ورسول نعم الذي جعل في سل لنا به ربه الجميل من ذكره واللطام

mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di si jiital nuyoo bi ba général de Mouride Serigne Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom guddal aw fanam. bi moom mu ngi lëkkale mboolem sët Serigne Hamdy Bousso mboolem ko askan ñu nekk ay jàmbaar lool tey di digg yàlla taxaw nañ ko taxawaay bu am solo ndax biñ ñu xëyee suba jàng wàcc nañ fi ay kaamil te yaakaar naa loolu moo si ëpp solo si màggal gi te ginnaaw loolu tamit mbokk yi ba léegi nag ñu ngi si. di liggéey ngir seen njëmmi maam ndog yi nag macha allah mi ngi jàpp naa ne moom comme comme ni nga ko gisee nii dara manqué wut lépp loo xam ne moom moom lu ñu war a ndogoo rek jàpp naa dara manqué wut lépp a ngi si biir moom waaw ñi ngi ñaan suñu borom nag gën a euh, naatal lépp rek si kàttu suñu Euh, ñun daal danoo am kontante di siyaare suñ nijaay suñu elaaji ñun ñu nuyu suñ rakk yi fekk si fii ak suñ mag yi di ñaan ñu yàgg koo teewee ndax ñoom dox dëgg yàlla taxawaay nañ ci taxawaay bu rafet kenn ku nekk def nga ci sa doole feeñal nga ci sa yéene lépp loo mën rek def nga ko ci ndax bëgg sa bisu maam bi yëkkati ko kon nag lépp luñ ci def ñoo ngi ñaan ci barkeb Seexul Xaddim bu déwénee yàlla nañ ko man ndax sonn nañ ci lool nag te gone yi tey ñoom ñëpp nag ku ne jàpp na ci ndax kenn ku nekk lépp loo man rek def nga ci def nga ko ngir sa jëmmi maam sa sa bisu maam bi ñu leen di ñaanal ñaanal suñu borom defal jàmm may leen fanu gudd ak wér lépp loo xamante ni yéen nañ ko liggéey seen maam rek yàlla na ñu fekk ko ci barke Seexul Xadiim kontaan nañ wax dëgg yàlla ndax ndax niñ ko jëlee tey kenn ku nekk yëkkati sa man-man ak sa doole def ko ci yéene rek la kon nag yàlla nañ ko yàlla nañ fi yàlla yàgg a def ba sunu njaboot di ko def ci barke Seexul Xadiim kontaan na loolu sant sant suñu xaadim mi nga xamante ne rek moo lépp moom la ak soxna maam Dia ak si ak baay Jili bu so ndax tey bu bu yëf taxawee ñoom la ndax ñoom ñoo ci taxaw walanteeru ci ba li jëmmal bis bi bay bés bi bis bi am kon nag bu ñuy sant ñoom it ñoom ñi leen koy tàmbalee sant ndax ñoom ñi nga xamante ne ñoo ko taxawal ñoom ñoom moom jaajëf yi ndax bu fekkonte ne wengal nañ ci lépp lenn dara du ci am kon su demee ba ñëpp ñëw sët yëpp dikk kenn ku nekk xool ci li nga xamante ne war nga ko cee def nga di ko ci def loolu wax dëgg yàlla defuñu damay di leen doo di leen eh, ñaanal suñu borom yàggal leen fi ñu yàgg koo def te bàkk Seexul Xadiim wa shifa min kulli da liman alayhi tamada wa man abahu turida sa hasratina wa nadami wa kullu shaxsin شهيدا بتوات الأقراد مربيه soxna Astou Diop tey ñu ngi la fekk ci màggalu ñëpp dañuy laxasaay rek comme ni ñu koy defee chaque année ñun ñëpp dañuy maase àndandoo nekk benn vraiment waxtaanee ko def ay réunion yaa ma gën a xam créer groupe WhatsApp di ko waxtaanee heure bu màggal bi jàllee rek à chaque fois ñu ngi koy waxtaanee réunir mooy tax à chaque fois bu ñëwee rek day réussir parce que kenn ku nekk après tamit suñu mag yi nga xam te ne ñoom ñoo jiitu ñu dañuy topp seen ginnaaw rek waaw parce que toujours rek mag moom mooy jiitu rek te dañuy soxla ay seen avis ñoom ñooy décider après ñun tam ñu ñu kii ñu doog a def daal ñun suñuy kilifa daal lañu am macha allah waa Mm-hmm. waa xanaa bu ñëwee ñu dal ak jàmm rek ak salaam xam ne fii moom seen kër la ëttu sëñ Afia Bousso la bu ñëwee ñu ndog ak jàmm ak salaam mu rees ak jàmm macha allah. Mm-hmm. waa ñu ngi sant suñuy maam sant suñuy nijaay sant suñuy bàjjen vraiment sant suñu sant sant nañ ñëpp daal ñi nga xamante ni vraiment ñoom lañ ñoom lañ bokkal sëñ Afia Bousso macha allah di ñaan yàlla ñu yàgg ko teewee bare yu baree bare si barke borom Touba Mbacke mi nga xam ne moo ñu boole barke soxna Diarra Bousso mi meññi sëñ bu so rafetlu bu baax a baax kontaan nañ vraiment. بعلم هدى حاوي الأقوام وهو الذي من أطار أن هو ما تدبر فيه عصى رب الوارى أضحكة للوام وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ذا عمان الفاتح عند الشكر